préparé junior ak Tidiane Faye numéro 2 préparé junior ak Tidiane Faye numéro 2 préparé suñu ndeyjoor door na oh là jël na ko Tidiane Faye daw na jël préparé préparé Tidiane réparé junior Tidiane Faye numéro 2 réparé junior moo ngi dóor réparé junior Tidiane réparé Junior oh, dan na Tidiane Faye numéro 2 waaw xoolal supporter yi oh xoolal supporter yi. waaw boo dee ñu ngi jubilé de supporter yi fekk na ñu ngi jubilé instant dan daan bee dan daan bee dan daan bi moo. non réparé Junior def na lu rëy. waaw réparé na ko de. ah nga ne réparé na. waaw réparé na non Cheikh Omar xaw ma caméraman nga xaw ma reporter nga. buur ba wàllu buur. oh la la